Wilson. Wilson doon naa pare man maay Wilson nag am départ Wilson Wilson nag <laughs> jaara safaraay dalal dalal Wilson euh, micro salaamaaleykum waa Sénégal di nuyuwaale suñu père Sanjogu. eh bu ma ko euh, waa plateau bi ñëpp. tout ah. euh, toute l'équipe je me de sa génération. le de sa génération. Hmm. vraiment kontaan ci émission bi trop parce que c'est la hmm. première fois tamit ñu invité ma sur plateau hmm. euh, ma njëkkee ko si si Walfadjri waaw macha allah Wilson nag yow da nga ñoo yab barke rasolaay Wilson nga ne yow yaay lëkki de sa génération oui li nga wax ne yow foo ko gëm sama bopp rek moo ah tax ma tuddee sama bopp noonu gëm sa bopp waaw moo tax nga ne le king de génération. waaw Wilson da ñëw pour tapas woykat yi nga xam ni ñoo fi ne wala c'est quoi le problème quoi wala sa waa ko ñoom ñoo la xirtal pour nga tapas wala lan da nga ñëw pour jalgati wala lan. non du loolu sax soo gisee li ma wax la ne gëm sa bopp rek moo tax ma wax ko. Mhm. Euh, man gëm naa ne si sama génération yëpp maa ci man yaa ci moo tax ma tuddee sama bopp looking de ma ah, génération bëgg ñu xool ba xam ñun gëm nañ la yow mën ngaa gëm sa bopp de suñu yoon newu ci bu la neexee nga ne gëm nga sa bopp Wilson mhm. nga ne démocratie réew mi daa soppeeku loolu nga wax loolu laa gis de waaw nga ne démocratie réew mi soppeeku na Wilson man balaa may ñëw ci texte bi mhm. euh, damay njëkk a ñëw ci musique bi yow da nga jóg pour yàq reggae voilà parce que reggae bi danga nga ko mbalaxal reggae bi da nga ci dugal loo xamante ni mballax la reggae musique kii wam la mais mooy ñu comme ñu doon def ay reggae morphine reggaeton reggae reggae yooyu yëpp nasax nañ parce que du ñu reggae loolu xanaa kii boobu xam nga ko reggae moom chaque jour mi ngi continuer di doon reggae lu tax yow léegi yow ngay indi reggae mbalax non ku ne tamit da ngay am sa style bopp. mais reggae musique bu d' abord bu euh, boppam la bu ko yàq. xam nga reggae peut-être euh, man reggae combattant laay def mais en même temps tamit li ma ciy boole culture bi comme traditionnel bi. Hmm. waaw. li nga way texte bi am na solo parce que jamono ji ñu toll nii euh, dañu soxla woykat yi nga xam ni dinañ am courage wax ci li nga xamante ni bi moo xew ci pénc bi parce que li nga wax ni ne démocratie bi changé na muy constat boo xamante ni bi sénégalais yëpp def nañ ko mm-hmm. léegi yow nga daal dee osé way ko léegi yow Wilson euh, lii bi nga ko woyee ban ban dëkk nga dëkk euh, man maa ngi dëkk Njagamba Njaga Njagamba Njagamba fan la ne Euh, c' dans la région de Fatick. yow euh. de Matar Macky Sall du la jàppale Matar ba du la jàppale yow nag Wilson da nga bëgg a tàmbali sa carrière. pour tëj sa carrière wala la lu tax préféré woo jaar ci yoon yu yomb yi parce que am na ñoo xam ni euh, bu ñuy way dañuy fexe jaar ci yoon wi nga xamante ne bi mooy yoon wu yomb bi pourquoi raison nga daal di choisir yoon bii nga xam ne moom nga choisir muy yoon boo xam ni yoon bu nar a gudd la tasaf lu tax nga choisir loo gis tamit ngëm-ngëm la laaj rek ak engagement mm-hmm. te man ni nga ni ma engagé woo si musique waaw euh, boobu moo moo ma gën a neex côté boobu tamit laa gën a basé wu mm-hmm. que man soo gisee samay textes yi waaw Euh, dama koy jëmale souvent si côté actualité comme li xew si réew mi mhm. waaw d'accord léegi Wilson euh, ndax parce que man gis naa ñoo xamante ni bi ay révolutionnaire lañ mais maanaam daanaka seen dundu gi yëpp ci révolutionnaire la ñuy ne maanaam affaire yi du neex yow musique bi kon defoo ko pour am ci xaalis defoo ko pour xaalis euh, musique nag dugg naa si en 2017 2017 waaw dugguma si woon ngir xaalis ba léegi tamit. Hmm. Euh, par amour laa ci dugg. amour waaw. Hmm. parce que dama ko bëgg. yow da ngay liggéey di def ci musique bi wala da ngay liggéey. pour def say. clip de enregistré rek affaire yooyu. pour l' instant damay liggéey di def si musique bi. Ah, da ngay liggéey di ci waaw mais pour pour le moment apporté gu ma mais amul ñenn ñoo xamante ne bi ñu ngi ciy jàpp pour. ci euh. yenn yi nga xamante ni moo lay kiiwal. waa comme sama staff samay fancy club dañ ciy jàpp bu baax a hmm. baax. am nga fancy club. waaw am naa fancy club. waaw hmm. ñoo ñoom ñu ngi ci risque di. <laughs> ah am nga fancy club. waaw am naa fancy club waaw. fancy club fu ñu ne yow yaa ngi yaa ngi soog a def kii wala dafa am concert yooyu tëgg nan lañ def ba xam nag fancy club yi. man loolu waaw man yàgg naa commencé musique parce que maa ngi ak seize titres. seize titres yoo xam ne par maquette laa ko génn mhm. waaw euh, peut-être am na ñoo xam ne waaw dañ doon déglu di euh, samay son yi waaw parfois di apprécier mhm. gars yi di ma woo téléphone parfois sax dañ ma doon proposé yow doo tëgg concert genre yu mel noonu ma ne leen mhm. noonu non heure bi su jotee rek après dañ koy def sama première concert sama village laa ko tegee Euh, fekk na maa ngi am ay sept titres yooyu. sept titres léegi nee nga am nga seize titres bii déglu nañ benn boo xamante ni bii wax nga ci wàllu euh, démocratie euh, doo ñu kiiwaatal benn ñu déglu xool ba xam yeneen titres yi yan la. am na son bi ma woy côté chômage bi. chômage. waaw parce que damaa gis ne jeunes yi tamit soxla nañ liggéey trop. réew mi maintenant soo gisee luy xew nii yëpp. Mm-hmm. parce mën naa wax ne. côté boobu moo gën a causer problème yi. Mm-hmm. boobu maa ci waxoon. jeunesse bi sonn nañ ndax amuñu liggéey ngir yàlla waay waay nañ leen di jàppale ñun ñooy avenir suñu réew waay jeunesse bi sonn nañ ndax amuñu liggéey ngir yàlla waay waay nañ leen di jàppale ñun ñooy avenir suñu réew waay bi ma nekkee ndaw. la nekk di daan sama doole waaye di yàgg dëgg dina baax li ma gis tey wute lool ak luñ ma doon gëmloo ndax dañ ma doon wax ne soo jàngee di nga tekki ndax jàng léegi mooy avenir tey mu ngi gën di metti may gën di souffrir ba fu ma jaar metti lool ba dootuma ko fàtte may jàng ñu may encourager et di ma féliciter te dëkku bu mel ni Sénégal njaay soo yoree say diplôme amoo baralon waaye ci ngay gën di sonn ma ne waay yaay jeunesse bi sonn nañ ndax amuñu liggéey ngir yàlla waay waay nañ leen di jàppale ñun ñooy avenir suñu réew waay maa ngi fàttaliku ay jamono ñii di taba taba ba yor seeni taabul léeg-léeg ñu teg sa mbedd mi di jaay ñu leen di dàq di leen di ramas ku ci wone sa nakar ñu tëj la duñ la jox liggéey ñoo ngi daan yuuxu woy woy pourtant ay doomu Sénégal la ñii di dëkk ci jooy njaboot yi toog di xaar mais si ban dëkk la nekk ba doole gën di torox nguur gi fàtte leen seen doom yu bàyyi ñoo ngi dee. macha allah voilà non mais c'est que. Mm-hmm. Euh, xaw ma lu tax. mais man sa way bi daf man neex na ma loolu moo ma ah, loolu moom ma loolu moo ma loolu moo jaaxal parce que li ngay way nii man dama bëggoon pour euh, kii la mais daf maa neex. li ngay way nii mais dafa mi ngi way may sama yaram di daw ah je ne xaw ma lu tax mais li ngay way daal dugg na sama xol léegi nag lii nga xamante ni bi moom nga ne nii ah. benn clip dégg naa clip bi non musique bi laay mooy problème. waaw léegi ñëw xam nga léegi lii mooy problème mu Sénégal euh, tur ba maa ngi fàtte. Wilson Wilson Wilson lii mooy problème mu Sénégal. problème mu Sénégal mooy yow yaa ngi woyal sénégalais yi mais faale wuñ la toppatoo wuñ la lii boo ko woyee seen ŋaññ ñi ngi topp musiciens yi nga xam ni wayaluñ leen maanaam seen bopp lañ ne. xool Omar mii am na lu mu yor ñu way ko ñoom ñu téye ko di ko challenge ak yëkkati ah di wayal koo xamante ni kii toppatoowu leen yéen ñi leen di wayal nga xam ne yéenay xool problème mu réew meeg yooyu faalewuñ leen noo gisee loolu waa côté boobu moom Sénégal moo nekk réew boo xam ne hmm. peut-être si intérêt lañ lay toppee ci intere lañ lay toppee non mais musique dañ la war a topp en tant que musicien buy musique boo xamante ne bi li ngay def Euh, kii na. parce que waaw moo tax man sama carrière ñoom animatrice yu njëkk ya ñoom ñooy yàq musique bi. Ah. la xanaa yow da gis sama. noonu nga moo tax sama carrière tamit basé wu ma ko si kenn. man sama bopp rek laa gëm sam si sama liggéey laa nekk tamit. waaw euh, mën naa wax ne. Euh. bi ma koy commencé. Mhm. gënoon na difficile ni trop. waaw parce que léegi affaire aw ma woon benn mbooloo mais tey nii gis naa ne peut-être. am na ñu bari ñoo xam ne apprécier nañ damay toog sax ba nit woo ma téléphone di ma féliciter. Mhm. du leen sax laaj euh, instant bi fan la ñuy jëlee sama <coughs> numéro. parce que mhm. dem na ba yëg foo xam ne sama tur. dem na ba yëg foo xam ne sori na. Mhm. xam nga béti kii buy way euh, sànq bi muy way. Mm. maa ngi xam nga présent loolu mooy jafe quoi maanaam da ngay maa ngi dugal son yi man. son yi war a àndal ci li muy way. moo tax mu frappé ma donc Omar xamoo lu bari sax ci reggae kon kay bul joxe <laughs> nga jéem a xool ba xam léegi bu mu jox xas la ah. ah def na def na defagum na seize seize titres di ay maquette ah uh-huh. waaw euh, dama koy laaj rek est-ce que mi ngi ci projet wu album est-ce que yaa ngi ci loolu mooy première question bi. <laughs> beneen beneen bi ci topp mooy. Mm-hmm. dangay ngay dégg ci wolof gis nañ nga wax lu leer ah texte bi leer na li ñuy li nga li ngay wax ñun ñëpp dégg nañ ko mais ci li clip bi njëkk jàll yaa ngi doon euh, euh, way ci français. Mm-hmm. Euh, est-ce que nekkul ni da nga bëgg a internationaliser sa musique wala maanaam. bañ ko yamale Sénégal rek mais génne ko quoi parce que reggae bi aussi gis naa sénégalais yi fi nekkoon di reggae doxul fii mais bin génnee dafa dox. waaw justement loolu. loolu ci la bokk parce que yaakaar naa pour nga lancer sa message ñu gën koo dégg ailleurs. Hmm. Euh, mën naa wax ne parfois da ngay utiliser français. Hmm. waaw loolu tax tamit. Euh, su may def samay inspiration ni may inspiré wu ci français. Mm-hmm. album yaa ngi ci projet bi waa album souvent nekkaguma si projet bi mais comme ñu xam musique dëgg parfois su ma taseeg kenn mu may conseiller def may njëkk laaj ndax yaa ngi ci projet album mm. normalement ku def seize titres war nga mën a def ah, album album la di mm. mais parce que ñi la bëgg a dimbali aussi tamit euh, bu doon da la bëgg a produire da ngay teg dara seen loxo quoi loolu tax album bi aussi même boo ci amul dara sax mais nga def ko rek téye mm. dina am fu mu la mën a yóbbu aussi waaw musique musique am bi pour mu dox fii jafe na Sénégal. parce que boo seetee fii mais au fii am na am na ay ay Drake Maxine nga xamante ni bii kooku le king la waaw. te gis nga musique moo lay wan ne Sénégal bu musique quoi. mais boo defoon album nga international boo doon taasu rek léegi léegi mën na génn taasu sax sama waajee di dem ñu gis album bi loolu dina la may am am ah, bongo mais ki mais yow mais yow yaa ngi ci plateforme digitale YouTube ak yooyu wala waa am na compte YouTube Wilson Nico rek moo nekk tour bi. Mm-hmm. waaw TikTok na am na tamit trois clip. Mm-hmm. am nga fa ñaata abonné sa kii compte. Euh, huit cent. huit cent xoolal loolu xam nga loolu fi la bët mën a ay huit cent cinquante et quelqu'un. waaw. Mm-hmm. yaay ma ngi lan kii boo ne woon <laughs> ma lan. vraiment Sadio Ba. mais mais mais comme comme aussi euh, euh, kii bi décollé bu baax a baax <laughs> carrière bi. mais man je te conseille nga dem di seet restaurant yi bar restaurant yeeg yooyu nga xamante ni nit ñi dañuy bëgg di fa toog di consommer di di di di dégluwaale musique. Hmm. yooyu aussi ñàkkul ci biir ci biir Sénégal léegi sax nit ñi tendance bi loolu la euh, rarement ngay gis ñuy dem ci ay boîte de nuit di baal yooyu peut-être génération mujj bi mais bon da fexe linké. ak restaurant yeeg milliers yeeg yooyu yooyu aussi da ciy dox bu baax baax te dañuy fay ba ba nga koy mën a exporter parce que Sénégal di ñuy consommer reggae bariwul de. waaw waaw côté boobu tamit xam nga connaissance fii la ñu amul. waaw te ñun te ñun aussi nu ñu nekk ay villageois ñëw fii doori suñu waar. Mm-hmm. day xaw a jafe pour yenn yi ko yow Dakar nga basé. Euh, waaw maa ngi fii actuellement mais man dëkkuma fii. ah dëkk ba nga basé. que am na fu non parfois xanaa nga organiser nii rek. ne euh, amul kii de dafa mel ne amu fa de fu ñuy yëngatoog yooyu organiser ni ñi ñëw wala yooyu. am na ah, kay am na centre culturel sax mais man mos naa jaar foofu benn yoon. Hmm. waaw parce que man dëkkuma ci ville bi quoi. village ci village yi nga dëkk ci village yi laa dëkk hmm. gisoo gars yi ni ñuy def léegi musique àndut ak te kaaral bii nga tekk nii muu nii ñu laaj la nga tontu il faut parfois tamit. nga non non non lu tax muy topp comme gars yi. Ah, alors li may wax tey nii rege rege man nii la rege man nii la. waaw kii kéem yow mi ma mën a xamoo dara ci rege. balax da balax ban naaw. may nii mais aj lan regameen yi du ñu xumb. non non non koy laaj mais parfois tamit. xam nga soo yoree liggéeyu jàmbur tamit am na loo xam ne. Ah, doo ko mën. doo ko mën quoi. ok waaw. da nga yor liggéeyu jàmbur. waa man si entreprise laa nekk. ah d' accord mais puis temps bu bari aussi doo ko am loolu da lay tënk. waaw waaw. ah c' mm-hmm. ah, la. Hmm. mais Sénégal tey en tant que gis nañ ah, sa première règlement vrai boo ko fekkee da ngay ni première clip bi yaa ngi wax ci démocratie Sénégal ak yooyu. Uh-huh. yaa ngi wax ci chômage ak réew mi fi mu toll nii yow ban jàngat nga ci mën defar. Euh, waaw man euh, xanaa di lancer appel rek. Euh, homme politique yi suñu régime bi tamit ñu gën a xoolaat euh, seeni taxawaay rek vraiment parce que ñun soxla nañ jàmm. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. pour yow lan moo mën a indi jàmm. lan moo mën a indi jàmm. Mm-hmm. xanaa peut-être xam nga soo xoolee nii en tant que opposition bi. Mm. ñu ngi ci seen politique parti au pouvoir tamit ñu ngi def seen politique. mais man lu lu mun a may jaamu instant bi damaa jàpp ne lépp ci régime bi la mun a joge waaw. d'accord mm-hmm. mais Sénégal na nga gisee artistes yi parce que dans les autres pays comme réglementation dañuy jël position ñëw taxaw assumer mais fii les artistes moom ñu ngi seen business rek taxawaay boobu ñuy am artistes sénégalais yi nu nga gisee. non soo xoolee sax am na ñoo xam ne peut-être euh, ñu ngi jouer rôle boobu. Mm-hmm. surtout euh, rappeurs yi. Mm-hmm. ñu ñu ngi joué rôle boobu ba léegi man daal fii nii peut-être si kii laa gisul ñu gën a basé wu si côté boobu comme mbalaxmaan yi <laughs> waaw lu waral lool pour yow dara waralu ko lu dul eh, nit xam nga ni ngay engagé woo ci sa liggéey rek mhm. loolu kese laa yaakaar ne looloo ko waral ak xool bëgg-bëgg sénégalais yi tamit xam nga euh, soo xoolee kii ni posé na ma question léegi wax ma ne lu tax nga choisir lu metti xam nga man li ma def si carrière kii reggae nii di ko mélanger euh, sama culture séeréer su ma ko defoon si mbalax mën na nekk dégg nañ ma fekk bu yàgg mm-hmm. waaw mm-hmm. d'accord macha allah tur ba Wilson Wilson xam nga nag dafa compliqué quoi sa tur bi Wilson Nico Wilson Nico <laughs> mais Nicolas tur bi ah, ah, Wilson ngi ci. Wilson Wilson voilà macha allah léegi eh, en tout cas saa yoo invité pareen saa yi ci plateau yi ngay gis eh, talent yoo xamante ni bii. vraiment euh, amuñu jàppale donc defe naa ni ñi nga xamante ni ñi ngi yëngu ci musique gis nga lii yëpp nag mooy musique yu bon yeeg yi xuuf ma ñàpp yëpp loolu yëpp système bi la. système <laughs> loolu mooy système non non billaay mais Béni kaay ma wax la non c'est kaay ma euh, na ñoo xamante ni bi tey Wilson Nico mi bu doon dem ci ñoom cent ans quatre dimanche duñ ko invité billaay dafa am système bu fi taxaw. boo xamante ni bi. moom mooy rey ndaanaan béti billaay loolu sax dañ ci am problème parce que mooy rey ndaanaan soo demee nii si télévision vidéo bi rek waaw parce que yóbbu naa ko si ay télévision yu bari. teguñu ko mais pour ñu recevoir la sax problème la. xam nga loolu mooy problème bi. parce que dafa metti dañ lay système bi baaxul. Mm. système bi la mais bi sax. pour ko nii mais du ñu déglu sax lu si ne. nu man système bi lay xeeb loolu des fois ça arrive. donc et puis ko fii déplorer. di ko di ko su ma génnee nii clip. wala ma génn son damay jàppu ne si télé bi may dem rek dañ ko war a teg parce que man dama dama ciy xam li ma li dama dama xam li ma si woy mhm. euh, boo ñëwee duñ ci naa benn vidéo boo xam ne dama ko jëmale woon si étudiants yi parce que instant yooyu tamit tàngoon na si seen côté trop. Mhm. Mhm. Euh, ah. ma wax monsieur le ministre de l' enseignement supérieur bëggatuñu gis waay retard pour su étudiant ah. policiers yi ca biir université bëggatum ko gis waay. son bu neex boo xam ne actualité la woon. Hmm. ma tourné ko clip mais. faale wuñ ko lañ ko mos a teg. <laughs> <laughs> Oh voilà Wilson Nico vraiment ñu ngi kontaan ci yow di ñaanal. Euh, carrière carrière bu am solo. Hmm. musique bi dina mës a doxi de. incha allah parce que lii ñu yor pendant des années nga xam ni béti jéggiwul bi vraiment incha allah musique bi dina mës a doxi te buy dox bokk ngeen ci ñi nga xamante ni bi jàpp naa ni yéen a koy yóbbu ca kaw mm-hmm. donc Wilson tàggatoon euh, waaw maa ngi remercier ñëpp avant tout mm-hmm. euh, di nuyu waale sama staff mm-hmm. nga xam ne fan si club bi ñoo ci gën a bari bi ñu ngi leen di massaw nañoo muñ di nuyu sama papa di nuyu sama yaay tamit waaw Hmm? dafa métti de carrière gu rek baat nga topp ja rek staffam. ku mën a muñ nga. mais yàggagu ci ah cinq ans la ci def mi ngi ci ah, sixième année ba léegi muy joxe kii yom duñ ko teg. seize titres. waaw waaw yi teguñu lu dul benn. xam nga li fi la bët mën a yem. ñu eh. sonnee garaawul. <laughs> jaajëf incha allah yéen tamit di leen remercier bu baax parce que hmm. yéen yéen a nekk. télévision boo xam ne yéen a ma njëkk recevoir seen plateau dëgg la waaw vraiment bi jógee bu ñu fàtte sa carrière bi jógee ba nga tukki di ñëw di def ay presta <laughs> bu la wooyee nag ñu wuy si dégg de <laughs> voilà archive bi dafay des ok oui voilà très bien